لم يبد من المصطفى محمد سرا وجل sant leen Serigne Touba fii ci ndax lii wax dëgg yàlla mën ñoo fay Serigne Touba mën ñu ko fay. 18 safar la ñuy waajal waaye 18 safar ba Serigne bi jóge Sénégal destination bi Gabon ki la woon. kon waa Gabon kenn war mën ci waajal magal yal nañu yàlla dimbali ba boole ñu ci peloton bi nekk ci kanam. Gabon nag kenn ku ne xam ne diggante Serigne Touba ak Gabon li lay xat wasaltu inda galwaa fii la saaxali xay laaw fii Mayumba fii Gabon la yasarali mun naa la daal Libreville fii Libreville la. ñun waa Gabon nag ñu ngi woo àddina bépp ku bëgg aaj ci faju ju gaaw bis bi nii woote a nekk jar na mélage ñëw wuy kon adduna bi yëpp ñu ngi ci woo ñëpp xam ne liggéey sëñ Tuubaa day li féetee kaw lu jaam doon def ci kaw suuf leen di woo ci waajtaayu màggal ñuy amal fii ci Touba Gabon ak li ko weer ndigal lu bàyyee ko sëñ Sidi Muxtaar jaar ci sëriñ Bass Abdou Khadim mi nga xam ne moo di ay loxoom di ay tànkam ñu ñaan yàlla suñu borom yi ñu sax jàmm ñu si woo bépp jullit bu mën di dégg suñu kàddu gi ñu dajee seet jàmbal faraa bi suñ tubaa diggee woon ci yoonam wi ndax daa xam ne lii kon bi kon sarmadan wajal masiri yasa jawfal xoraa lil wara mislal maarey ñu leen di borom def nañ seen tawfeex suñ tubaa ñi préparé leen waajtaayu màggalu Tuubaa fii ci mbirum Serigne Touba kenn du ci man ñuy am yaakaar ci bii nga ni kenn du ci man di ko yëgal ñëpp di ko yëgal fépp baywuñu kenn baywuñu kenn ci li yëgal sëñ Sidi Mokhtar yàlla na ko yàgg wér mbir mi nag mu woo Cheikh Bass jox ko ko Cheikh Bass it yaatal ko lool ut ak commission ñu di dox guddi ak bëccëg subaa ngoon ñu war a ñëw fii seet si kon bu ñëw dama na ay Serigne Touba yooyu ñëw ku am ay Serigne Touba nag war ngaa waaj ndax kër bu ne li ci yëpp dana fa jël nit ànd ak moom nga xam ne ñoo bokk liggéey ñëpp yaakaar rek la ci dugg kon ku fu nekk ci dëkk bi ak ku nekk bitim réew ak foo mën a nekk ñu nga lay woo ci bés bii nga jàpp ci te dox ci te jëf ci bis bi nag le 22 lay commencé ba le 29 ñaar fukki fan ak ñaar ci octobre ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci octobre ci lay jeex sëñ Bass Abdou Khadre mooy jiite délégation bi muy àndal dina ñëw fii taxaw ñu ci bis bi ci ndigalu sëñ Sidi Maxtaar xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg ci wér. ci biir programme boobu ci alxamis mu tolloo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci la délégation bi nga xamante ne nii ngay jóge Sénégal ñëw yegg si ñu fay séenee ne teew dalal leen fii ci Gabon bu ñu xëyee ca àjjuma ji incha allah tombee ñaar fukki fan ak ñett ci ci weeru octobre. ñu fas yéene jullee jumaa incha allah montagne sainte mu bokk ci site yi nga xamante bi ne la danañu fa. visité site yi nga xamante ne sëriñ bi nekkoon na ko fa foofa ca Lambaréné def fa waxtaan. suñu xëyee incha allah ca dimanche muy toog ak dibéero ci la ñu fas yéene amal conférence bu mag fii ci Libreville bu ñu ca jógee altine ko incha allah ci la ñu fas yéene jógee fii ci Libreville dem Port-Gentil suñu demee Port-Gentil danañ fa fa nga xamante bi ne ni fa la sëñ bi muy Cap-Lopez danañ fa amal it conférence allah bu ñu fa jógee ja talaata ba ca suba ga la ñuy jógee Port-Gentil dellu si waat Libreville suñu dellu seen Libreville la des ca bés boobu day nekk bésu ziar fii ci Libreville àllarba ba tombe ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci la ñuy fii dem Mayumba e foofa dinañ fa visiter site yi nga xamante bi ne ni sëriñ bi nekkoon na fa def fa it waxtaan bu soobee yàlla dellu si waat ci àllarba bi suñu dellu see ci àllarba bi alxames bi incha allah ci la délégation bi nga xamante bi ne dafa jógoon Sénégal ñëw ci lañ nañ ci fas yéene ñu dellu aéroport yokku ngir euh, jëm euh, Touba incha allah. fii nga xamante ni ñun tey jii. danoo tànn ndax bépp taalibe bu nekk Gabon rek xam nañ du say coobare bopp Serigne Touba moo la tànn ngay missionnaire mu indi lu fii Gabon kon ñun missionnaire yi dajaloo Gabon tey jii jox nañu tey jii xéewal boo xam te ni dañ koo bëgg a bokk ak waa àddina bépp ñu ñëw xam kan mooy Serigne Touba waa Porgente nag takku nañ di doon say di doon benn fas yéene xaar mbooloo mépp wan leen lu mis sa gis jërë ngeen jëf. Oui, mes frères, venez au 29 octobre 2015 pour préparer le grand magal de Touba qui célèbre le retour en exil du Cheikh. ñun waa Gabon nag ñu ngi woo àddina bépp ku bëgg aaj ci faju ju gaaw bis bi ñuy woote foo mën a nekk jar na su ñëw wuy sëñ Touba Xadim Moustapha ci ndigal Cheikh Sidi Moutar ñu ngi sant bu baax a baax waa Gabon gépp nag ñu ngi taxaw di xaar addina bu ngay ñëwee lépp dina mat saa si dina mat baat dina mat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu